Sunugal 24 point maa leen di fay bu baax di kontaan ci dajeeg yéen sant yàlla bu baax. xam noo waaw man la Chadia artiste chanteuse auteur compositrice interprète donc mën maa teew fii ci raaya bi. <laughs> ça maa ngi si jàmm maa ngi sant bu baax. waaw parce que dañu ma nominé ci nouvelle euh, révélation de l'année donc may sant yàlla bu baax di kontaan aussi ci ñu boole ma ci parce que liggéey rek comme li may wax liggéey rek moo am solo donc musique dañ ko jàng jël suñu temps nag di liggéey donc lépp lu ñu boole rek ci lu mel nii dañuy sant yàlla di gën a góorgóorlu. ci ban lañ la sélectionné ba tax nga <laughs> waa jege ma la son bi jege ma la tudd donc moom moo génn na daaw ci période bi rek presque ci janvier bi donc ñu boole ma si damay sant yàlla. xuus yow jege ma boobu dang ñu ciy may ñu àndandoor jege la <laughs> baby bëgg naa la lool sama bànneex oh oh waaw kaay fii ma woon la ni ma la nobee ba saa su ma tëddee xaaja guddi di la gént lii lu mu doon wax ma wax maa lu mu doon sama mere damay weet sama sore damay jaaxle kaay jege ma tey Sadia ban yëg-yëg la am le fait ñu boole la ci sélection bi waaw comme li may wax rek sant yàlla mooy li may wax rek liggéey rek moo am solo donc ñu ngi ci liggéey bi jël suñu temps di liggéey lépp lu ñu boole rek ci lu mel nii dañuy gën a sant yàlla di ko sant yàlla bu baax a baax mm, kontaan. est-ce que système mën nañoo xam lan moo ko lan moo tax mu taamu way mbëggeel kese. non non taamu ma woy wuy mbëggeel kese parce que déjà mooy li may wax rek musique dafa yaatu man déjà damay composer dama am samay composition damay def musique pulaar donc afro laay def donc mais bu ñu ñëwee ci mbëggeel bi rek parce que mbëggeel dafa yaatu mun nañ ci woy lu ne mun nañ ko tënk dafa mun nañ ci woy lu ne daal donc Sadia tënku rek ci woyu mbëggeel mais. Sadia mën nañ xam fan la jàngee musique. waaw man Douta Seck laa jàngee ci Adolphe di ko sant bu baax parce que def naa fa 6 ans 7 ans sax parce que barki dem rek laa fa jóge damay def cours particulier mais foofu laa jàngee bam sama diplôme de chant. Mhm. depuis Sadia duggee ci art bi lan nga ci mos a jànkonte. waaw waaw yombul ah parce que déjà nga nekk jigéen taamu musique musique tax nga bàyyi lépp donc yombul. li nga li ñu wax rek mooy gëm rek moo am solo dama ko bëgg gëm ko donc lépp lu ma ci jànkonteel tam mbégte lay nekk. Mhm. Sadia dafa marié wala. <laughs> non <laughs> la. xale yu góor lu am naa de. Ah. ndax ñëpp noppal waaw. <laughs> am nga lan la ñuy xaar si lu bëri euh, maa ngi leen di pareel lu neex a neex maa leen di pareel ay affaire donc nañ ma xaar Sadia mu ngi ñëw génneewaat feneen mooy li may wax rek liggéey musique mooy suñu lépp loolu la def donc fépp fu ñu ñëwee rek di ngeen bëgg incha allah. Mhm. mu mel ni jamono ji yaa fi defoon robe bu fashion bu baax gaynde gi ñëw titi def robe réseaux sociaux yi di toj ba nga ko gisee naka nga def sa si non mais euh, pour man dara nekku ci parce que déjà euh, man Chadia ku ma xam xam ne ci sol man dama mës a bëgg sol donc. mooy sama lépp damay defar ba mu rafet defar ba mu baax bu ma génnee ñëpp respecté ma gis ma bëgg ma donc lépp lu nit def tam parce que yaatu na daal mbégte rek mbégte rek. gisul robe bi da neex rek mooy. <laughs> xaw ma <laughs> donc loolu moom loolu moom xaw ma dara mais ñoom suñuy sœur lañ suñuy sœur lañ dañ fi nekk di def lu nice Chadia topp seen ginnaaw man dama leen di déglu bu baax man musique variété laay def donc amul kenn koo xamante du ma la déglu naar sax dama koy déglu. parce que dafa am loo xam ne dama koy seet dafa am loo xamante ne bu ma ko gisee tey ci Youssou Ndour dama koy jël ci moom parce que liggéey bi may def damay composer donc damay euh, damay inspiré wu donc yenn saa yi dañ may inspiré ci lu bëri donc ñoom dañ def nañ fi lu rëy de waaw.